والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الحمد لله رب العالمين noo ngi bàyyi ko woon borom bi taala wa tabarak dinu xamale ni yéefar yi suñu leen waxee ne nañu sujootal borom bi mu ne ñoom dañuy laaj kan mooy borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa bëgg rek ñu sujjóot ndax li nga ñu digal waaye bu dee loolu dunu sujjóot loolu nag yóbbu leen ci ñuy daw ci foñu wa zaadahum nufuura ne am na ci nit ñi tey ñoo xam ni julli loo leen daanaka guerre mondiale la day mel ni suñuy julli ay ton lañuy sëf seen kaw wala yaadu billah loolu nag daana defu ko lu dul jël seen bakkan jébbal ko seytaane seytaane di leen tiri fa ko neex loola moo tax nangul seytaane moo gën a yomb ci ñoom nangul yàlla la seytaane di woo lu mu diis diis lu mu metti metti mën nañ koo assister duñu sonn mën nañoo dem entraînement mën nañoo dem salle de musculation cinq heures yenu ay poids dóor ay jeu de jambe dóor ay flexion coono yooyu yëpp metti lool nga gis ne ñii seeni biceps rëy na dënn yi ponkal nañu am nañu endurance ci entraînement waaye amuñu endurance ci jaamu yàlla soo ne woon julli rek ñu feebar day mel ni bu ñu taxawee ne allahu akbar attanuñu loolu ndax dafa diis ci ñoom moo tax nit ki war a xeex ak bakkanam ba mën a mucc ci façon feebar yooyu borom bi nag di ñu waxal ne am na ñoo xam ni day bokkuñ ca loolee am na ñoo xam ni dañuy jaamu yàlla ba yàlla taf leen ci boppam tuddee leen ay jaami yàlla yàlla moo ne ñii ñoom samay jaam lañ xam nga ni nga ni man jaamu yàlla laa moo gën a yomb yàlla ne la yow sama jaamu loolu daraja bu kawe kawe la daraja boobu nag li koy may nit ci ñett la aju nangul yàlla déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfee seeni ndigal bés boo ko defee rek bokk ci ñi nga xam ni yàlla da leen di jago noona mu mel noonu la mel yàlla subhaanahu wa taala jël na it ay nitu alquran jagoo jago te yonent bi nee na ahlul qurani hum ahlullaahi wa xaasatu nee na kojug alquran ñoom ñooy kojug yàlla ndax alquran la ñuy gëstu fu ñu toll di ko jàng di ko jàngale yàlla nañu yàlla may martaba boobu borom bi ne tabaaraka ca dëgg-dëgg barkeelal na allazi borom ba nga xam ne jaala def na fi samaa ci asamaan fii burujan ay ngunu ay manazil ngunu yoo xam ni ci la biddiw yi nek seeni façon la muy bari bari ak seen wuté te benn bu nek ci ñoom di door di fëgg asaman motax borom bi ne was-samaa'i wa taariq biddiw yoyu borom bi len sos te nga xamni bo taxawé ci sunu aduna bi di xol day tuuti ci yow te moo ëpp planète bi ñu nekk kon boroom bi ne ki nga xam ni moo defar ngunu yooyu ci asamaan biddiw ya nekk ca borom boobu ku barkeel la waaye ne wa jaala borom boobu def na fiiha ca asamaan sa siraajan kandiyee mooy jant te mooy lamp bu leer naññ buñu waxé waxee moy projecteur tax mëna wajja ala fiha siraja borom bi def na ci asaman sa ab jant té moy projecteur nga ne kandiyé né def na fa yit wa qamaran ak wèr muniran niiran buy kaw suuf nga liggéeyam mooy mu leeral kaw suuf bëccëg nga mën a gis sa guddi sa bopp la kon yàlla jël na jant jox ko mission jël biddiw yi jox leen mission waaye jël weer jox leen mission te ñoom kenn kenn sanut ban suuf sanut bañ ndigalal yàlla asamaan fa bañ ndigalal yàlla montagne yi suuf xeer yi sañu ñoo bañ ndigalal yàlla ndigalal yàlla daal ñaar rek ñoo ko sañ bañ mooy nit ak jinne moo tax yàlla tuddee leen ñaari way dëgër bopp yi mooy ak saqalaan li ko def nag borom bi da leen a jox xel togg sant leen ngir ñu def ak seen ak coobare waaye yeneen yi ma la wax bu ci nekk dañu koy def loo rek mu def tawan aw karhan dañuy def ci ndigal moo tax borom bi bëgg ñu góorgóorlu ci ndigal ba mel ni yooyee ba mel ni asamaan buñ ko joxee ndigal mu def te du xaar mel ni suuf buñ ko joxee ndigal mu def te du xaar amul benn suuf bu ma a ñëw ci moroomu suufam ne ko bul saxal waaye bul saxal wala toppal sama maam mu saxalal la ñoom xamuñ ko la ñu mën mooy ndigalal yàlla lañuy def waaye bàyyi ak tereem ma ne suñu góorgóorlu woon ba mel ni yooyu ma tudd ci topp ndigal kenn duñu dab ñu nekk buur ci kaw suuf nekk buur ci biir suuf nekk buur bu ñu dekkee loola mooy lan képp ku nangu ndigalal yàlla buur ngay doon lépp luy lore dalay daw ndax xam na ni nangul nga borom bi te moom nangul na borom bi kon su boobaa day nangu ne jaamu yàlla nga mu nekk jaamu yàlla étape bu jafe la nag waaye bu neexa a comprendre la yow mii ni nga bëggee say ndigal ñu obéir ko topp ko def ko noonu na ko général bi bëggee noonu la ko kilifa gi bëggee kon su ko yàlla bëggee noonu war nañ koo mën a defee noonu moo tax mu ne tabaraka alladi jaala fi samaai buruja barke dëgg-dëgg yàlla barkeel moom mi jël asamaan def ca ay nguunu muy ay kandiyee ngir biddiw yi ne wa fiha sirajan borom bi daal fay def projecteur te moy lampe te moy jant bi wa qamaran munira borom bi daal fay def wer wuy leral kawsuf suuf mu ne ba wa huwa yàlla momé alladhi moy borom ba nga xamni ja'ala al layla defna guddigi gi wan nahaara ak bëccëg xilfatan ñuy permité wante ñuy wuutu wante soo bëggee comprendre li ñu tuddee permutation mooy ñaari gardien nekk ci benn bërëb kii am heure kii am heure su bëccëgee kee garde guddi kee garde noonu ñuy wuutu wante yàlla subhanahu ne noonu la jëlee guddeeg bëccëg ñuy wutuwante benn cercle la rek buy dox day dox ba ci yàgg benn douze heures de temps wala lu ko jege nga nekkoon ci guddi jékki ba ci yàgg na ci bëccëg noonu ngay demaatee bëccëg bi dox di dox di dox ba ci yàgg nga ñëw ci guddi moo tax mu ne wa huwa alladi jaala al-layla wan-nahaara borom boobu moo def guddeeg bëccëg xilfatan ñuy wuutuwante ibnu abbas ne jaala kulla wahidin minhuma yaxlufu saahiba kenn ku nekk di remplacer moroomam loolu nag lu mat bàyyi xel la mat caa xalaat borom bi ne loolu da koo def bi mu ko defee ñoom ñaar ñi ñuy wuutu wante noonu lañu war a xamee ne ñun dañ fiy jóge noonu lañuy ñuy wuutu wante tey ñun ñii fi nekk ñu bëri taxaw nañ seen taxawaayu papa seen papa taxawoon seen taxawaayu maam seen maam taxaw seen taxawaayu maam mataar loolu lu muy tekki mooy man de saa maam ca din bi daaw la gaañ ba mu ko defee sama bàyyi jóg ma dund ak moom ba xaw a egg fenn fi mu gaañu tey maa fi ne kon su ma demee dégg bébé di dégg doom ba ci yag di deg Umar dem ba ci yàgg dégg ñu naan waxambaane nga sol sa dal baay mu jot la lay daw ba ci yag tolloog sa papa la sa papa atta attanatu ko legi ya ko tay wutu sa papa la jënd ko ceeb teel ko bokkum indi tey mënatu ko bu ñëwee def la naan kay nga yëkkati saako ceeb ba xam nga lu muy tekki moy étape bi sa papa ag da nga ci ag kon di nga wutu bis dina ñew nga wutu sa papa bes bobu ñew sa papa gañu ba taxaw taxawayam bo beugé yew bis bo amé soxna ba dégg ne am nga dom sa jour ngenté sa remplaçant ñew la yow nga xam mom ki kii lay remplacer mi ngi di vestiaire bi mom di échauffé wu mom waaw ngi di vestiaire yi moom di échauffé wu di la xaar waaw di xaar rek nga am benn ki wala benn sok rek mu ñew remplacer bo démé ba dégg papa ah yow nga commencé défaru japp na ni fi ñu bari dégg nañ papa yambali rek ñoo ko dégg waaw rek ñooy daw dégg papa kon bis boo déggee papa bu yeboo nga jàpp ni adressé nañ la lettre liir nga ko wala liiroo ko sa problème la waaw liir ko wala sa problème boo xasee dégg papa toog am ñaari doom ñetti doom bis boo amee benn doom am na lu jóge ci yow boo amee ñaar ñaar jóge na ci yow boo amee ñett ñett jóge na ci yow loolu lañ lay toppee di la topp di la topp bu fekkee yàlla dalaa defaloon nga war am ci cinq doom mooy sa jëmm jeex na tàkk dara defet léegi dootoo mun dara ndeysaan looy xaar bis jot ñu ne gaañu na ñu ne ana taaw ma loolu la ñu njëkk ana taaw ma mooy yaay remplaçant bi yaay ñëw remplacé gi nga ni jant atamaana suuf di wutu wantee ñu nit noonu la ñuy wutu wantee insha allah yal nañu yàlla defal kuutuwaay yu baax moo tax borom bi di wax ne ki la wuutu soo ko defaree mu baax wuutuwaay bu baax lay doon kooku subhanallah da ngay sant yàlla mooy doom joo xam ni xam nga ne kii bu la wuutoo ci kàttan yàlla dana nekk baax ndax yar nga ko ci jaamu yàlla waaye boo ko yaree ci caaxaan xam nga fu muy mujj walladi qaala li walidayhi uffil lakuma ataidaani fa lay mujj mais ngay dem bàyyi fi doom yu dul jaamu yàlla seetaan leen ñuy caaxaan fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaat fa sawfa yalqawna yàlla ne sàggan nañ ba bàyyi fi kuutuwaay yu bona bona bona bona bon ay doom yoo xam ni football bëre caaxaan musique seen yoon ci julli seen yoon ci jaamu boo nee bàmmeel bu xaar ñu ñaanal la ñooñu amuñ sataane ñooñu dem ay concert lañu dal dem ay làmb topp ay mba nekk ay caaxaan loolu lañu dal mais ñu toog julli di la ñaanal parce que bàyyi woo fi wuutuwaay bu baax kon asamaan ni muy wuutoo suuf dafa baax ni suuf di wuutoo asamaan dafa baax moo tax borom bi ne wa huwa alladhi jaala al-layla wan nahara khilfa yàlla dafa jël bu ba bëccëg def leen ñu nekk wuutuwaay ay hambalalla liman arada nam ay yadhakkar ngeen mu ko baye li fatale ko di xalat li ma fi joxe kan ci ni ku yew rek ci ngay xalaat boo amee doom rek xamal yow déta yow existé do légui sa dom mo existé li la fay wat moy luy ray bu ñëwoon sa digganteeg sa dom da ngay bàyyi sa dom mu dé ah da ko bàyyi sa bop ngay joxe kon war nga xam ni remplacement ñëw motax liman arada ay yaddakkara li xommal motax borom bi subhanahu wa taala di ñu leeral liman arada ay yazakkara aw arada shukura wala mu nekk ku nam di sant yàlla yàlla ñu yàlla boole bi la shakirin ñi sant yàlla deug deug dëgg ñooñu yàlla da leen naw yàlla nañ ci yàlla boole ñi jéggalu yàlla nonu motax tax mu ne aw arada wala nam sukuran sant yàlla ci xéewal gi mu la defal yaa ngi wér mën a jóg mën a doxi mën a dem jàkka mën a déglu alquran mën a jaamu yàlla mbokk santal yàlla ba sant fu sant nekk santal bay bëgg a am na ñoo xam ne mënuñ ko dalal jàmm bee am na ñu fa dëgg mënuñoo génn mënuñoo dem hôpitaux yi boo ci demee clinique yaa ngi fees del del del kull yow nga gis ku la jaaxal bis bu ne nga gis koo xam ni sa yaram da ciy dawe bis bu ne nga gis nit koo xam ni day soppiku soppiku ba couleuram doota ko xàmme ba moom day tiit ci moom ci boppam njabootam dañuy tiit tey rek jigéen wax na ma xool ma jooy ba tey na oustaz kii kii dafa soppiku wala kanam bi mu mel ma ne ko waa ah, soppiku mooy lan ah feebar feebar ñëw na après lan la ñaanal ko yàlla ko rek li ci des yoroo ko gis nga ko loolu moom lañu borom bi wax ne ngir ñi nga xam ne dañoo nam ma sant li ma sant yàlla bëri na léegi nag yàlla ñëw bi ñu wax nag ñiy sant tey jaamu te nekk li baax ñooy ñan mbokk borom bi day taala wa tabaarak wan nañu fii loo xam ne juróom-ñeenti melokaan yàlla ko yàlla saxal ci ñun xeexala kii boole borom bi ne ña bañoon a ña bañoon a xalaat ci mbindam yàlla ña bañoon a déglu conseil yi yonent bi di conseillé ñii di ñëw bokkuñ ci ñu ne yàlla ñooy ñan borom bi ne waa ibaadu rahman jaami yàlla yii xoola yàlla jël leen taf leen ci boppam wa iba waxul sax wa ibaadullah ndax turu yàlla dëgg-dëgg mooy allah mais xoola lim ko defee ar rahman yërmande jaami borom yërmande bi waaye ñoom yàlla da leen di yërëm fu ñu mënti jaar waay yàlla ci yàlla boole yërmande la yàlla jël taf leen ci ñoom lan moo tax parce que yàlla pare na pour yërëm leen lu tax ñoom dañoo sacrifier seen dund seen temps ngir seen borom moo tax borom bi jël melokaan bi ñuy wooyee rahman tudde ko boppam taf leen ci wa ibadu rahman allahu akbar borom bi ne jaamu yàlla yii moo leen di teral moom yàlla mu ne nag maa ngi leen di waxal ñooñu nan lañu mel ñu ne yàlla waaw ñun dey war nañ koo xam ci jikko yooyu bu ko defee ñu mën caa waaw moo ndax association la boo xam ne ku amul carte bokkoo déedéet ah loolu de yàlla def ko nag wax dëgg yàlla nag su doon loolu kat ku ko nekkul am problème moo ndax mbooloo la boo xam ne il faut nga bokk ci biir ñu doog la ne ci nga bokk da ngay mel melokaan yi ñu santaane ku la ci boole sa nga ku la ci boolewul sa borom boole na la waaw waaye melokaan yi nag mbokk juróom ñeenti yi la indi waaye am na yoo xam ni yonent bi moo ñu ko indil ci la bokk te bu nga yi yonent bi ni moo gën a diis ci nit su ma ko naree fàtte ne ma yan la yonent bi digle mu gën a diis ci nit ñi borom bi ne wa ibaadu rahmaan jaamu yàlla yi bu ngeen ko bëggee xam dem leen suuratul furqaan ma waxal leen ko ñu ne kan ak la mu ne ëllëziin première melokaan bi mooy ñi nga xam ni yam yamshuuna danañ dox alal ard ci suuf si hawna tekk bi sakinatin waqaar dox bu ànd ak dal dox bu ànd ak dal waxul ngay dox di onk mel ni ku si bur feebar ñëw war a julli allah nga fa foog nga ne yow boo kaalawoo da ngaa war a banku mel ni ku police jeune nga góor nga bu la neexee dàqanteel fowal fugalal dafa lépp bu julli jotee taxawal julli julli gu correct ñu xam ni yow jeune nga un jeune branché bu dëgër mais allahu akbar ñu xam ni kii jeune la waaye nga ni yow mbokk sunna rek nga bëgg a jëndi feebar mel ni ku cancer suy dugg jàkka di ni ni boy déedéet sigil del mbokk nuyul nit ràpp mu dëgër mu xam ne da nga dëgër bu fi deedeelu bu fi feebar dara dalu la bul jàpp ni pour nga nekk ahlu sunna il faut nga mel ni ku ku nekk réanimation déedéet déedéet yére yi nga bëgg sol yére yi jeune solal yére yi mën na sol nga mën nga sol yére yi jeune def li jeune di def te doo mooy borom bi ñooñu la yonent bi nee na yàlla day kontaan ba reetaan ci jeunes yu mel noonu ni jeun kan bo xamni ne ku dugg sunna rek melni magetu santa eh cham cam loolu daa mun njëriñ xam nga ne yooyu moom umar nga xattaam neera suma su doon dox ba ndaw nuyu mom mané ko rap loxo bi deugal neera na damay kontaan xam ni dëgg dëgg dëgg lii lañu soxla way ko am bu lay nuyu ni ni nii yaa ko loolu doxe ko góor waaw nekkal góor dëgëral këni xoolal utal poids alterul tangal la yaram bi tàng jur su liggey jotey liggeyal ba ñu xam ni góor nga su lek jotee lekkal bañu xam guur góor nga su nelaw jotee nelawal bañu xam guur nga su tak jabar jotee takal jabar waye liggéey ba bëgg dé di rosé lal yi rek amu benn njëriñ liggéey liggéey da ngay wé top lal yi di rosé rek di yeewu fajar di foot rek ñoo nga takk ci sa jamono ngay ndaw ngay am doom mu dëgër mais bo togué magget màgget bu mën ko dara bo amé doomit magget ngay jur kon da ngay dëgër moo tax mu ne alladina yamsuuna mooy ñiy dox ci kaw suuf alal ardi hawnan ànd ak dal dox bu dal waaxu lay doon te doo yëkkati suuf waaxu te doo yëkkati suuf yonent bi ku àndoon ak moom mu raw saxaaba yi nee nañ ànd ak yonent bi dox munoo doxa doxa dox ba jiitu yonent bi te doxam dox bu dal fu ñu toogee moom la ñuy séen kon day wane ne góor dafa war a dëgër waaye jënd melokaan yoo xam ne suñu melokaanu gaa yi rek onk onk ba kàddu gi sax day day onk gaa yi xam comme comme suñu gaa yi fii suñu gaa yi pour nga nekk wàll yi il faut nga nos il faut nga yoo xam ndànk sëñ bi ñu ñàkk ñàkk fayda yooyu foog yooyu tax nga nga nekk wàllu yàlla wàllu yàlla day dëgër këru alladina yamsuuna ala al ardi hawna ñoom ñooy dox ci kaw suuf si bi sakinatin wa waqaar du ñu doxee doxu bandi du ñu doxee doxu jaay doole dañuy dox dox bu dëgër wax wax ju dëgër jëf-jëf ju dëgër te lu tee seen xol yéen mën a rek tey fees loolu mooy melokaan bu njëkk ci ibadur rahman melokaan bii nag bu ko yoree ba pare فمن كو واخ دانكو ورا جاي دوله ديديت موتام بروم بي تك تدي واذا خاطبهم فسكي واخنا نك نيوم نان الجاهلون ني خمول بونو خول سي سين بي سيف سوي داي اك سين كونتان اك نيك جين واي نيوم داني بريفير نيك جامو يالا قالوا سلاما ني واخ جام بول نيك جين نك انتريني بو دغر نك نياري بات نغا يوف مول دا باي كاي ديديت خولال داغي فيس ديل واي نوي نيك ci li ko li mat a dëgër nga dëgër te jullit noonu lay mel fi mat a nooy nooyal fi mat a dëgër dëgëral jullit jullit noonu lay mel ah kon da dëgër tënk nit su ñëwee bëgg laa jaay yu amul xamal ko ne doo tuus te dese sa ragal yàlla man ki dellu waa sama jël baat bi <laughs> marché marché ay paan benn waaye ak si ak ma sàll maa ngi jël dégg ma ko ma sëj ne ko amala ma ma ko maa tey <laughs> maa tey mu bëgg wax ma ba ma ko nag parce que sama jarbaat bee day nangu feeñ bi nit nit ñi commencé ñëw benn waaye ñëw puus sama jawaab ma ne ko boo ko puusatee nit ñi nag commencé ñëw waaw waaw moom Serigne ñeneen ña eh, moo tooñ kii dafa tax fii de gis nga tool ne fa pour mën na ko yàmbar mu tool yow demoo liggéey nga mën a def dara et eh, puis gàddu di yelwaan bëri mag ñàkk yow defoon nga ci Serigne ci Serigne torox na gis nga nit da ngay dëgër ci lu a dëgër a baal nga ku bëgg a jaay caacaay ko ne caacaay da nga koo nag denc ko bu ko sànni de bu ko sànni de utal kalpe denc ko ca. lele day am solo lol waaw léeg-léeg nga xamal ni gaay yi mbir mi nak du demee non waaw mun nga bax ba bax jeex waaye nag waaye nag doon du demee non de bu nangu tok rek ñu na la nangal nga raana alhamdullilah ila saaga de bàyyi na la ak yalla waaw bàyyi na la yalla ci ku ko jar ku ko jar danga koy fudd xamul do ko bàyyi ak yalla ko fuddee ba fa do ko bàyyi ak yalla moo borom bi ne wa idha xaatabahumul jahilun saay-saay yi nga xam ni wala ki xamul su waxee ki yow ci wax bu jéggi dayo dalal te xamal bu naree dépassé les bornes nag xamal ko ne ah déedéet nag du ñu nangu nag nga dépassé bornes yi xaalu ñu wax ni salaama ñun de jàmm rek la ñu bëgg ñu ne yàlla ak kan mu ne wala ziinam jaami yàlla yooyu ñooy ña nga xam ne yabituuna danañu fanaan sujjadal di sujud wa qiyaman di taxaw li rabbihim ñeel seen borom yi fii la mbir mi ne de bok bi ci la rawante bi nek da rawante bi newul ci ci liggéeyu bëccëg bi de guddi fa la rawante bi nek ndax yaangi nafila donte ñaari rak'at ndax yaangi fajar ndax di nga jóg bala fajar ndax yaa ngi ñaan di ñaanal julli ñaan bi gën ci ñaan yi te par force day nangu mooy ñaanal sa wayjur ñaanal mbokk julli bi boo ko defee malaaka yi la walaka muslim allahumma xfir li wali walidayya walil muslimin bu ko defee yàlla nee na jéggal naa la lu tolloog nombre jullit ñi jullit ñi ñaata lañ nit ñi ñaa waxuma bi de jullit ñi ñaata lañ ni ñu toll yalla jéggal lu toll noonu au moins nek nañ presque 2 milliards ëpp nañ ko fim mu ne ëpp nañ ko ci statistique yi kon bo ne allahumma fir wa li walidayya wa lil muminin yalla ma ngi ñaan nga jéggal ma jéggal sama waajur yalla yalla nga jéggal ñëpp yalla ne la jéggal na la lu toll ni ñi nga jéggalul dara gënal ko loolu la borom bi nag wabil bil asxaari hum yastaghfiruun wa bil asxaari yàlla nee na sama jaam ñooñu ñun lañuy jóg di jéggalu borom bi ne walladina ñooy ñi nga xam ne yabituuna danañu fanaan li rabbim ñeer seen borom sujjadan di sujjóot wa qiyaaman di taxaw ñooñu di sujjóot di taxaw di julli ah, ñooñu ay jaami yàlla lañ borom bi ne baax walladina bokk na ci ñi nga xam ne yaquluuna dañuy ñaan nan rabbana ay yow suñu borom srif anna yal na nga ñu wutalal adaba jahannam mbugal safara yal na nga ñu soreel mbugalam safara dee leen ñaan yàlla mu musal leen ci safara yal nañ ci yàlla musal dee leen ñaan yàlla xëccal leen àjjana yal nañ ko yàlla xëccal mbokk yi ñooñu mu ñooy ñi nga xamante ni yaquluuna rabbana srif anna adaba jahannam yalla ñu ngi ñaan nga wotteel ñu mbugalum jahannam nga soril ñu ko li tax inna adabaha naka mbugalab jahannam day kana nek na xaraaman di alkande bi dig la yow ñëw ba yowmal qiyam defo dara lu dul tabal jahannam yàlla nañ ci yalla musal te kat lolé borom bi leena innaha naka jahannam saat ñaaw mustaqarran di dalway yal nañu yàlla musal ci danuwaay boo xam ni jahannam lañ ko wax wa muqaaman ak dëkkuwaay nañu yàlla musal ci waxuma la sax dugg jahannama waaye romb ko rek yal nañ ci yàlla musal séen ko rek yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bu ñu jahannama jege yàlla bu mu jege lu ñu jur yàlla bu mu jege ñeñu jur ak seeni sabab ñoom ñépp mbokk yi mu ne inna saat mustaqarran wa muqaama mu ne walladiina ñooñu nekk jaami yàlla yi ak li ñuy jaamu jaamu jaamu yàlla ida anfaqu suñu joxee dépense seeni jabar wala seeni wayjur wala seeni bopp nit dina am xaalis di yàq di ko leer ne li muy def ëppal la li nga am dencal lekkal toppatool say wayjur joxal sa jabar joxal wala dina borom bi ne mooy ñi nga xam ne ida anfaqu suñu dépensé lam yusrifu duñu yaq li mata joxe lañuy joxe liñu warta joxe ñu téye ko kon nattal li nga wara joxe waye jamono day dox nak yeen jokkate dépensé jamono bi na yokku la di gën yaangi bëgg dé dëkk bu lepp aju lepp lepp bala nga xamni lo joxe ci dépense doyul merel sa jabar ba dem duggi bis bo demee duggi bo ñëwaaté di ngi ko ni sét tit tit ndege affaire yi léegi léeg demal marché nga dugg léeg nga jox sa jabar benn deux mille cinq cent mu ñëw indil la tuuti nga di ko xool funki ah. dafa tuuti yow demal boo demee quinze mille di nga ko jënd doo mat la kon loolu nañ ci bàyyi xel ñu dimbale jigéen ñi incha allah su ñu amee doon waaye jigéen ñi dañu xam ne jamono daa metti te xam ni lañ la dox ñamu toll mën nga caa def lu jekk bu soxal rafetee rek lépp daa di rafet kon ñooñu borom bi nee na bu ñuy dépensé du ñu ëppal lam yusrifu waaye walam yaqturu yoruñu jikko yi nay de naya naya nay ba dëkk nayoobe déedéet na ma waa nayoobe baal waaye gis nga nay bu jéggi dayoo nag baaxul ci góor góor gu bëgg yor njaboot bëgg ami doom bëgg teraanga deel joxe ndax yàlla dalaa bind pour ngay joxe góor moom joxe lañ ko bindee de waaye buñ la laajee rek tuñ mi jóg sikki mi jóg lépp jóg nga funki déedéet joxeel nag ndax loolu ci la bokk kon borom bi nee na wallazina ak ña nga xam ne ida anfaqu suñu dépensé لم يسرفوا دون يقب غير قبل ولم يقتروا دون ناي بتي سن خايس نيوم دال ني وكان دني نيك ولا نيك بين ذلك ديغل تناي اك مانا جوخه خواما دنج في يم دنيو نا سي ديغ بي دنيو ديغ دومو دنيي جوخه لي ني ورا جوخه لي ني غير بنن يون ان شاء الله موتاخ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ne walladina bokk na ci seeni melokaan ñooy ñi nga xam ne laa yaduuna du ñu woo ma allahi booleeg yàlla ilahan yàlla axara beneen du ñu bokkaale mukk du ñu bokkaaleeg yàlla mukk mukk mukk te li gën ah da nga wax d'accord mu ne walladina laa yaduuna ma allahi ilahan axara du ñu utal yàlla benn benn ndenn te it wala yaqtuluuna nafsa du ñu rey bakkan de allati bakkan ba nga xam ne harrama ya allah yàlla araamal nañu rey ko illa bil xaq ci lu dul dëgg rey rey léegi la bari nit ñi di foye rey ah yàlla ya ñu yàlla ya musal saa bu jamonoy waaju tukki rey lay bari dee lay bari yàlla ñu yàlla musal ci rey yàlla bu suñuy loxo takk ci rey yàlla bu ñu nekk sabab ci rey loolu yàlla buñ ci yàlla boole borom bi nee wala yaqtuluuna nafsa du ñu rendi du ñu rey an nafsa bakkan allati ba nga xam ne xarama allah yàlla araamal na ñu rey ko illa bil xaq ci dul dëgg mu ne wala yadnuun melokaan ba ca dot mooy ñoom nag du ñu njaaloo allahu akbar wala yasnuun suñ nga jaami yàlla du njaaloo mbokk njaaloo mbiru bakkan la xeexal ak moom loo mësuma day yàq góor day yàq der day yàq tur day yàq alal day yàq jikko dalay xeeblu dalay xeeblu gis nga njaaloo même wàllu waa àdduna ñi gën a bëgg àdduna di fo dañu koy def mais bugguñu ko ndax baax bugguñu xoolam lu suufee ni njaaloo ak ni mu xewe tey jigéen ñi tiktok bi Facebook bi YouTube bi nga gis yi ñuy góor ñi noonu léegi jël njaaloo def ko fowukaay waliyaadu billah borom bi neen du ñu njaaloo mukk mukk mukk mukk waaye nag mu indiwaat beneen bunt bu am solo wala yaznuun ne du ñu njaaloo ñu ne ko ha mu ne du ñu ko def de mu teg nag wa man yafaal zalik képp ku juum ba njaaloo seytaane mën na laa mën yàlla bu ñu seytaane mën sa bakkan mën na laa mën sa pexe mën na laa mën seytaane mën na laa mën bu la mënee ba loolu am loo baax baax baax yàlla mën na laa nattu nga njaaloo saxaaba yi ku leen gënoon am na da ngay gis mu am ñu mu dal ci ñoom maïs saxaaba la xaamidiya su fekkee njuumte am na ba lii am su njuumte amee ba lii am mbokk sàngal deru jullit boo bett muy njaalo wala nga xam ni dafa njaalo sàngal deram bu ko weer bu dañuy wax ni benn jigéen dafa weer boroom këram ci njaalo yuuxu koñ bi yëpp tàcc naan kër kër gulaan sa waay génn daw exilé wu génn dëkk ba dem del si waatu dem yoona bu mu demee benn at ñaari at ñetti at yàlla dogal am ñu gis waaja ca benn dëkk waaja nekk fa imam dëkk ba ñépp naw ko mu am fa jabar di fa jàngal waa jooju bi mu giseek moom waxtaan ak moom ne ko ah, am na koo bàyyi woon dëkk ba de mu ne ko boo demee ne ko may naa ko baatam mënatumaa ñëw dootuma teg sama tànk foofu mënatumaa ñëw te bugguma mu fekk si ma waa ne ko lu tax mu ne natt ba ma yàlla tegoon mu dal ma moo ma weer ba ma génn dëkk ba kon mënatuma feeg moom ñëw ñu ne faf mbir fa yàlla may ndaw sa keneen ndaw suñu bett ko moom it loolu mooy lu waaye di leble wala tusmit ala axika fa yarxamahu llahu wa yabtalika bu ndokk sa morom mën nga koo ndokk yàlla yërëm ko natt la yow malien yi dañuy wax xam nga lu ñuy wax ku ne ci buntu tefet bul reetaan ku jësit matt ku ne ci buntu tefes bul reetaan ku jësit matt xam nga buntu tefes jësit lañ faa bëri boo reetaanee ki jësit matt amaan na balaa ngaa pare jësit matt la kenn du encouragé njaaloo mais ku mu dal jullit la nattu la da dal ñaanal ko yàlla waaye nëbbal ko nëbbal ko am na benn waay dafa gis ku jaaloo comme dafa tàmm nettali te gis na ne nettali baaxul mu koo bàyyi affaire bi feebar na ko ay fan xamut nu muy def bu dem wax ko benn benn maire ne ko man dama gis loo xam ni su ma ko nettalawul du baax ci man <laughs> ñooñu la ñuy wooyee ëmbul xabaar am na de ñoo xam ni xabaar bu ñu dégg bu ñu ko joxewul seen biir yi day metti fu ñu toog ñu ngi xaar problème am pour ñu nettali ko bi mu ko waxee maire bi maire bi ne ko dangay dugg sa biir néeg tëj ko nga wax soo waxee rek mu dañ ci yow waa ji dugg bi néegam tëj fott yëpp diw dafa koo gis muy njaaloo feebar boobu bu dalee nit na xam ni ah problème na ah, de feebar la de am na ñoo xamante ñoom ne joxe information moom dañoo jàpp ne buñ ko njëkk a joxe feebar nañ moo tax boo leen ko joxe ñun non xamoon naa ko parce dañ ko cee njëkk moo tax dafa tàmm dafa tàmm nettali yàlla ñu yàlla mu jot ci nettali nëpp googu nag nga wara a mbokk neppal ko sa morom ndax li nga koy waxal ni ndax mbola tax mu def ko xamo lutax mu def ko ban circonstance la kon ñaanal ko mu meuna a mucc ci yooyu kon borom bi subhanahu wa taala ne wala yadnuun ñooñ dey duñu njaaloo mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk ne wa man dalika kep ko xamni def na njaaloo yalqa dana dajeeg asaaman ay bàkkaar yu bari lay de ndax njaaloo li ci aju moo bari dinaa la ko tënkal ci ay mbir bi nga jaaloo koo njëkkatoon sa bopp ay bàkkaar la koo ci teg ki ngay jaalool ay bàkkaar la koo ci yaay yi ki ngay jaalool baay ki ngay jaalool frère ki ngay jaalool koo ci teg sa yaay sa baay say frère moo tax borom bi la yalqa asaaman day dajale bàkkaar yu baree baree baree bari wal iyaadu billah نينا يضاعف له العذاب دايكاي فولاند البغلام بتوب يوم القيامه ويخلد فيه مسخت جهنم مسطوب مهانا بكل طرف خم لو كان نكو نكو توخال كو يالا مبوغال تي نيالو داني لي فك باغا سيت دو سول ييري دو سول ييري دول موي مهانا توخال لا دا تخاو سفارا بي تي دوبو سا ديم مين تي ген تي سا باي وا سفارا دي لا غيس نيوم di la yërëm donte ñoom ñu ngi ci lakk mais ñoom dañ lay yërëm yow yàlla nañu yàlla mu koy allah ba daal bi bind wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh